doyen vous n'avez pas parlé de la visite de Mélenchon on va y revenir. Euh, tey man man am naa sama xalaat waaw da ngeen di mais da ngeen di xaar. Hmm. yaa ngi Birama da ngeen di xaar ba ba invité bi wax ba pare ay <laughs> ca Pape Seyna bon je pense que euh, souvent on a une presse boo xamante ne nii euh, des fois dañuy mettre en avant plus le sensationnel euh, alors qu'en réalité. il euh, y des problèmes de fonds qui son la mhm. e qu'il faut régler e que le gouvernement en place est en train de de, de régler mhm. euh, damay commencer si li nga xamante ne nii moom mooy la préoccupation de la population sénégalaise muy la cherté de la vie mhm. mu nekk un point très important ñëpp duñ ciy wax e li ñuy souligner le plus souvent mooy que ne euh, le nouveau régime en place day subir ay critiques yoo xamante ne le plus souvent sont des critiques non fondées parce que un gouvernement qui est là depuis un mois dix jours. Mhm. ñu bëgg mu am ay résultats immédiats loolu mënul nekk quand on se dit la vérité on sait que euh, lépp loo gis processus la laaj et que le gouvernement est en train de travailler d'arrache-pied pour que les Sénégalais puissent tant soit peu am benn aisance. si mhm. wàllum dundin si wàllum nekkin bi. Mhm. parce que dafa am lu ñuy wax. euh, les les les les besoins sociaux de base te besoins sociaux de base euh, lekk si la naan si la santé si la éducation si la donc loolu dafa nekk ay composantes yu am solo yoo xamante ne nii ñu ngi siy liggéey de telle sorte que ne bu fekkee am nañ si résultat bi ñu bëgg la population sénégalaise si gën a gis boppam tey on est en train de parler de souveraineté alimentaire. ñu mm-hmm. xoolee sax le conseil des ministre bi nga xamante ne nii euh, def nañ ko le mercredi passé. Mm. le président Bassirou Diomaye Faye a beaucoup insisté sur la pêche artisanale sur les ressources halieutiques. Mm. parce que les gens li ñuy bàyyi ginnaaw le plus souvent mooy que ne Sénégal au-delà de sa superficie. tey dañ ne Sénégal c'est cent quatre-vingt-seize mille cent quatre-vingt-quinze mille kilomètres carrés euh, mais dañuy fàtte souvent que ne le Sénégal aussi c'est sept cent kilomètres de côte. Mm-hmm. boo amee 700 kilomètres de côte am na lu ñuy wax la zone économique exclusive boo xamante ne ni dafay étendre si daanaka presque 20 kilomètres au large parce que boo jëlee la ligne de base la ligne de base bu ñu koy wax dans le domaine maritime mooy euh, bu géej gi fere comme léegi lu ñuy wax maanaam mara basse. Mm-hmm. marée basse bu amee euh, limitu géej bi fi muy yem foofu la ñuy considérer comme étant la ligne de base bu ñu jëlee ligne de base boobu noonu ba 20 kilomètres. c'est une superficie boo xamante ne ni c'est l'État sénégalais qui est propriétaire donc en sus ñun si superficie bi ñu am on a des ressources halieutiques yoo xamante ne ni c'est incommensurable te si zone boobu noonu la zone économique exclusive il y a que le Sénégal qui a euh, l'autorité de pouvoir exercer des activités économiques wala des activités d'exploration de pétrole ou bien de de de, de produits miniers donc loolu noonu su fekkee dafa am euh, dafay am solo que protéger cette zone-là. moo tax souvent gars yi la wax de promesse de campagne mais la première promesse de campagne qui a été tenue par le régime en place. Mm -hmm. c'est effectivement d'auditer les licences de pêche et de publier la liste des bateaux qui sont habilités à pêcher. Mm-hmm. au sein de l'espace sénégalais. bi ñu ko defee léegi nii mu néew mu bëri on est en train de voir des avancées assez significatives te ñu ngi ci peut-être à moins d'un mois d'exécution tey boo demee zone côtière ay village yu xamante ne ni ay nappakat ñoo fa bëri lu mel ni Yaraax lu mel ni Thiaroye lu mel ni Mbaaw lu mel ni Tëngéej Bargny Kayar et cetera on se rend que jën bi mu ngi ñëwaat rareté de poisson bi gars yi observé woon euh, du temps du régime précédent ñuy gis ne loolu noonu mu ngi dañ nànk-nànk te loolu ça entre en droite ligne avec la volonté que son excellence le président Bassirou Diomaye Faye a de rendre au Sénégal sa souveraineté parce que un pays quand il n'est pas souverain il peut pas aspirer à se développer donc su ma la déggee mooy ñu ñu dal quoi donc non seulement au-delà ñuy dal mais la seconde chose c'est d'accompagner le régime qui en place mm -hmm. parce que quoi qu'on puisse dire xam nga ñun dafa amoon lu ñu tàmmoon a gis si les acteurs politiques yu yàgg yi. mais mhm. maanaam quand on gagne dans une coalition on essaie de prendre chaque leader de coalition ñu am fu ñu la tabb ba ñuy wax partage du gâteau mais boo xoolee le changement moo tax damay nekk en phase ak sama frère Adama. Mhm. bi muy wax sànq que ne y des emplois yoo xamante ne nii ils sont menacés effectivement quand on est dans une logique de construire un pays on ne menace pas des emplois mais on se met dans une perspective où des emplois donc bu ñu demee ci loolu noonu ñu gis que ne euh, bu ñu renforcer la souveraineté alimentaire ça va créer des emplois au niveau du secteur primaire tey les pêcheurs qui la dañuy am possibilité am jën bu ñu amee jën dafa am benn mbir bu am solo bu ñuy bàyyi ginnaaw souvent mooy l'économie circulaire la transformation des produits halieutiques euh, euh, tey boo demee dans une commune comme mbaaw on a un regroupement de femmes bi ñuy wax les femmes transformatrices de produits halieutiques. Mhm. bu mool yi demee géej ba ñëw ñoom la ñuy jox seen jën yi. Mhm. bu ñu jëndee jën yi foofu noonu ils faut la transformation ñooñ ñooy def les poissons séchés les poissons fumés. Mhm. mooy géej bi ak keccax bi qui est le plus souvent exporté dans les pays de la sous-région loolu dafay créer de la valeur ajoutée parce que les pêcheurs travaillent on a les mareyeurs derrière qui viennent acheter le poisson. on a les femmes transformatrices derrière qui viennent transformer le poisson on tey même les charretiers qui viennent faire le transport euh, des des des pirogues jusqu'à jusqu'à terre euh, on a les camions qui viennent le transport qui viennent récupérer la marchandise et l'exporter on a même les transitaires qui s'occupent des formalités d'exportation donc c'est toute une économie qui est en train d'être viabilisée mm-hmm. et li si gën a am solo mooy c'est l'économie qui tourne parce que soma dañuy wax ne euh, régime bi fiscalité fiscalité ma ne fiscalité y de plus naturel euh, que ça au sein d'un pays. Mhm. mais li ëpp solo pour que fiscalité boobu noonu ñu mën ko jëmmal mooy qu'il y des activités yoo xamante ne ni dafay générer de la valeur ajoutée. Mhm. donc si logique boobu la ñu la ñu la ñu nekk. Mhm. et ñu jàpp que ne bu ñu renforcer ce secteur là dinañu gën a mën a gis suñu bopp si dëkk bi ni koy doxalee. mu am beneen partie bu am solo muy aquaculture tey aquaculture mooy la ñun on se base très souvent sur les ressources halieutiques souvent ñu ne géej gi amul jën et cetera mais pourtant tey quand on parvient à développer l'aquaculture mën nañu am une abondance en poisson boo xamante ni ça va permettre de nourrir toute la population sénégalaise okay. au niveau de la commune de Mbao y a un projet boo xamante ne nii c'est financé par une euh, benn benn ONG espagnole boo xamante ne ku ñuy wax Mor Mbaye Diop moom moo koy dirigé ak Yaay Kumba qui est la présidente des femmes transformatrices on a construit le premier étang boo xamante ne ni dafay mën a jël ba deux mille cinq cent alevins. Mhm. il a actuellement une vingtaine de jeunes qui sont en train d'être formés sur les techniques d'élevage de poissons donc ñooñu noonu. imagine bu ñu demee ba am cette compétence là dañuy mën a à leur tour. voilà man ëpp lébu la ma ngeen def